يا إلهي من لو زاد قليلا مفلس بصدق ياتي عند بابك يا بابك نجد بلطفك يا إلهي من لون ذات مخلف مولس مبيت بخياتي وكتاباتك نخرجني ذنب وذنب عظيم فاغفر ذنب العظيم ذنبه عظيما فاغفر ذاك العظيم إنه شخص قريب مسلم أبا بكر كنت لوزي يا إلهي من لوزا بالخلق بالخيات وإن داري منه عصيان والنسيان وشرب بعد الجعل منه عصيان والنسيان وشرب بعد الجعل منك إحسان وفضل بعد إعطاء أبا بكر جبريل Ya ilahe manuza de mokhane Mokhane se mane Fidhiyati Gitarai Khoija kato Hala ya rabi zunodi Bismillah لا يضاع عني كل ذنبي واستعين أبا بكرني جنب الوفي يا إلهي طلو زاد الخليل ونزرني في بخياتي غير تباري غير كيف علي ليس لغير الله سلم أحمد كثير بعد طاعة أبا بكر الملوك يا إلهي من زاد الخليل ونسر الصدقيات إذا غير داعٍ حاسد من كل داع حاسد من كل داع حاسد من كل داع حاسد من كل داع حاسد من كل داع عني حاجتي وإنني حسبا سقيما أنت ماكي أبا ذكرني بالمنوبي يا إلهي من له زاد الخير ولصدقي صدقي يا بيبي إنما يا جميل كل نعمة إذا يا ربي يا ربي القهار كل نعمة إذا يا ربي يا ربي القهار كل نعمة إذا يا ربي يا ربي القهار كل نعمة إذا يا ربي يا ربي القهار كل نعمة إذا يا ربي يا ربي القهار

في الخفا عالم القلب العرب في عاد الخفا تلتف الماء ركوني أنت في أبعد كرمي تدمن في يا إلهي من له زاد الخفي ونسبي سلمياتي بيت دبعي يا جميل أنت شافي أنت كافي أنت شافي يلا وكافي أنت شافي يلا وكافي أنت

Yalla ككثير مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أبعد كلمة تجل يا إلهي من لو زاد مخلف ومن سنتي سنتي ياتي لك إذا بعد

الأمور وأصلحه لي أنت حسبي أبا بكرني بنوتي لا إلهي أن لو زاد الحجر من سبقي ست خياتي وشتبعتي وعيدني المنتشر التقاهي مهمات الأمور أنت شافي أنت شافي أنت شافي يلا التقاهي أنت شافي يلا التقاهي مهمات الأمور أنت شافي أنت حسبي أضعب كرمي في الجلود يا إلهي من لو صادر خلق سلطي سلخياتي يا إلهي أنه Rabbi Hapani, Tukatili, Rabbi Hapani, Yala, Tukatili, Yala, Tukatili, Yala, Tukatili, Yala, Tukatili, Yala, Tukatili, Yala, Tukatili, Yala, Tukatili, Yala, Tukatili, Yala, Tukatili, Yala, Tukatili, Yala, يا إلهي من لا زال حلم نور صدقي صدقياتي إلى العالي يا ملكا كبيرا ملكا كبيرا ملكا كبيرا ملكا كبيرا ملكا كبيرا وأمر الخلق الخطيب والمنادي أبعد كرمي بالجنود يا إلهي خلى وزاد الخلق

فدعنا المختار في الانقلاب لما على سيدي مشت شفاعته ذوي الكبائر كي يرجعنا فآمنا وسليا يا إلهي وزيا أنا

الأمن سلم على سيدي خشت شفاعته ذوي الكبائر ومن رمضان وسلم يا إلهي وفيك أمان المختار بالأقدام إذا أتاك مسرورا يطالك مسكيا كمالك مسكيا كمالك مسكيا كمالك Need to put your life up, come on. You get pussy good, come on. Need to put your time up, come on. You get pussy good, come on. Just to get it up, come on. New kiss to get it, come on. Get come on. you yow di ci biir nañ ko maala ci biir nañ ko maala yaa jara Come on. Jöntöfiak tüverlak, Jöntöfiak tüverlak, Jöntöfiak tüverlak, Jöntöfiak tüverlak, Jöntöfiak tüverlak, Jöntöfiak tüverlak, siis yàlla fi yàgg tiwér lool dëgg ñaan yàlla fi yàgg tiwér lool suruñe bi la yàlla fi yàgg tiwér lool suruñe yàlla fi yàgg tiwér lool ci ñaan fele ak yàlla fi yàgg tiwér lool wax ne ak yàlla fi yàgg tiwér lool wax ne ak yàlla fi yàgg tiwér lool fele ak yàlla fi yàgg tiwér lool ki waaw wa la fi waaw la kama

وسعى في الاقتدام على أحمد من ربي الصلوات يمن لقد عظمت في خلقه بركاته يمن لقد بهرت شمشة ضحى معجزاته Balaimho Lapa kati wa ibadu Fahayadu sahun wa amalu sahun Wa lehid jarnau Allah ya fi muhasabi wal zilal ولا تحيا حيثي متحولا فاكرين بمعنى تحرك منزلا يو يو يو أحق عباد الله بالماء ولا لا لا dinaa leen ko ma man la jar naa yoo yoo yoo yoo ku def ni yàlla nga ziyaari borom ba leen ori ca Madina loxo وقد سمعت كيني قد سمعت وكف ندم تحكي صحاب متامت وأي هدى بالأمر والنهي حكمت إذا أنت لرسلي آه آه آه ينتقد ما تقير سمع لاي أداود وإليه جرناك يا يا يا يا yàlla nga ziare borom bareel وجاء بآياتك فقد كل خالتي ومن شك فيه هو في الدلالة في الحق الشك بلع في الدلالة حتى ما زلوم دودو يقلو ودلو الجمال من مودسي أمام رام jëfal nga yàlla sa borom sa ngir suul lu ñëpp yee tanti tàggar ya jël nga ko tan ba yeneen ba tàmbalee nekk nga tàmbalee xilaas su saab bi jël nga leen fi leen di jaar wax nga ñu ko wax nga ñu kiiraay ya mu doon sambaale yàlla kii bindoo wax nga ñu geen ya ko dogoon mu jazabe way nga ko wax kañu abraham ki ñam waxal la ko mer na waay waay ca kaaba ngir ma ko ko dem la ko dalal wax ñu ko waxtu yu nekk la ju doon waxta ko doon wax ko ñu doon ndox kenn yaa yam bakkanam leen yaa fa jàll way nga ko si ngaari wax nga la xewoon Cameroon sa gudda bëgg ko ñaan mu jëni war nañu ko war nañu bàyyi Abdoulaye te dinu soxna ko nga bañ ba ñaani woon bàyyi ba ko muy si ba jaxaay wax nga ñu ko mammo bisi amoo goro amoo goro Abdoulaye sey ba tay baay sey ba taha si may baay Hashim Abdumana Faibaya Abdumana Hussein Bay Hussein Kila Moy Bay Kila Muratai Bay Murataka Bay Kap Luye Bay نوي غادي باي باي باي باي باي باي باي باي باي Firik manik ay Wahlet manik nadaray banik Wahlet manik nadaray banik Wahlet manik nadaray banik Wahlet manik nadaray banik Wahlet Wahlet manik nadaray banik

kinaanata xusaymata ay baayam xusaymata mudrikata ay baayam mudrikata liyaasa ay baayam liyaasa mudara ay baayam mooy baayam liyaasa mudara ay baayam mooy baayam liyaasa mudara ay baayam mooy baayam liyaasa Mizar, Mizar, Maat, Maat, Adnan, Adnan, Maudanena bo dee lim samay maam ba ca àddunaan bu ko dépassé addit limal ma ay maama ay maama waaye bu nu wees àddunaan maa mi borom gay de jaay xajaaminal waa ma neena wasal li yami yaa ilaay yoo wasiyama xalaare xanaa Moda nonton yang MTV Dirpunya loyo Borong kahakun kahakun Dan mau fikir na bagi moda nonton yang MTV Dirpunya loyo Borong kahakun kahakun Ayo bilang Bila Mondar nonton yang MTV

Đừng mong là cứ lòng quay, chứ đừng riêng nào Quá lòng lại cũng mà đêm Chỉ áp đi mà đàn Nhưng mà khó đi qua bay Quá lòng Sư ca mà cần Chứ đừng riêng nào Nó khó chẳng, nó khó chẳng Mà nó tư

Panginoon, pasaway kami o dumating sa ibaba't kalibalang bercitat ah. di Wow wow wow sering ah. Turun bëggee ñu xam na way ko baa nga way waya billahi moo ci gaa dërëm zéema waawa nga fu ma dem ci àddina daal ñu naan xalifa may naan xalifa may si Babacar turam siiw naa ay waay bu bëggee ñu xam na way ko baa nga way waya billahi moo ci gaaw tërëm si waaw wallaay fu ma dem ci àddina daawal ñu naan xalifa may waaw waaw Sëriñ Babacar Touré siiw naa waaw jox ma sa loxo ma jox la ñebe sëy bi bay billahi maa ko jaaw tërëm siiw naa waaw wallaay fu ma dem

yow foo mën a nekk bët dina yow ñu ànd jëm ca bay jërëm zéro waaw lay fu ma dem ci àddina ba ñu ma xalifa may sëriñ Babacar jërëm zéro naa tudd na bay tudd xalifa Seydina amul morom bay tudd xalifa Seydina

sang labil imani panatina ya hari kasih ikri wasal labil imani wajuratil sultani wal jirani Walaf hadith عني وكل مدين عن يا ربنا فاغفر لنا حاجاتي والشر كل خازد وقازدا كيد كل كائد وكائدا ومفسدين في الدين والخيار يا ربنا ومجدي شقاوة وسبت في الله وفي وبالكتاب النبي مصطفى الحواك الحمد بسم الله والمساجد

ويا مجيب والدعاء أحوج للحبيب نسألك تسليم في الخطاة والصبر ورجالة البلاء بمصطفى شفيع كل الخلق والسلم إله فانتهيم في الحق أزكى صلاة الليل والتسبيح على الذي بشر بتسليم وآله وصحبه الراتب وتابعين ثم لو إياه Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana الله على دين النبي وكن بشيخنا الإمام الطيب آمين آمين استجب ولا تخيب سيدي رجانا أرجو الأمان يا ذكرك الجميل في الدين والدنيا بلا تستحيل استر لنا بسترك الجميل في الدين والدنيا بلا تستحيل حسبنا عليها ثواب ذكر ساحر

diwaltinkan Rasulullah Maka tutup Cinta kita wajah

وما مقفنا وسليا وسلما يا ربنا وكريما

nanum and nanum to be delight this God and Sabah to learn Doga Sabah Akuma si tu ta de mai pun ta ta na na pun pa te ya karba khali yo na ya le chamar un si no na na mai pun na pai yu do yo na na ye ta chamar sa suufu Karbala bi ak metti loolu bu nu fàtte ñaan waa Karbala bu sii nu naan may woona xale yu ndaw yu naan yéen ak ca maam Karbala su kungar balame ako tepti lolo kun fate ya kun fate ya kungar bala kusi nona bai mona Yuna na yuna chama karwa khairu nabdiya khairu khalqila tu

yalla nañu yalla muy fanaanu jam ci bank Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam ko ne ci Instagram bi rek di ñu suivre wala ci YouTube bi yalla yalla yàlla defal la jam ngeen dem rek abonné fofu pap malik mbay TV lolu ngay def pour abonné fofu bo fa demé di nga gis suñu vidéo ak suñu direct inshallah allah kon nañu ñaanal ñepp jam julit bu ne fa nga ne yalla la fa yalla fekk defal la jam ci barke Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam